boora Thiam waaw Thank you. bon of wérul. mel ni le moral est ah très bien. Ah. waaw. yaa wax loolu. très bien dégg nga wax si journal bi tey. lu mu wax. si journal record bi. lan la wax ah, moom na yërëm boppam. nee na da leen yërëm a féete xale. waaw ndox leen doole. waaw leen leen daane du baax yéen. waaye ñun dooraguñ ñu ba sa xarit ñëw àtte la. nee na yéen. ñu ba sa xarit la. Ah, a ah, waaw. combat bi nan lañ koy waajalee. pare rek comme non sérieusement. non comme dañ naan waajee combat yëpp rek. mais nag bii dañu gën a yokk. nga ne combat bi mooy mooy déterminer avenir yu Gris ci biir arène bi. waaye mooy mooy déterminer avenir ñaari mbër yëpp. muy Ama Baldé muy Gris Bordeaux mais Ama nag mooy xale mooy wut. comme Gris mag la. ñi ngi taxaw di ko xaar rek. ah mag yooyu noonu fe lañ fexe daal ba nañ jàpp seen xarit yi rek ba buñ dugg ci biir buñ dugg ci biir enceinte bi waaw comme moom moom boo ko njattee gars yi ñëw àtte waaw asib ay ca noonu la demee ay ca ñu ngi fi nga xamante ni tey moom mooy ci école bi gis ngeen Gris 2 di waajal li nga xamante ne nii mais Gris Bordeaux ngi noonu Bamba di waajal le bordelais mais namu naa la mais xëy rek a ñaaja wooy Noza. aywa Noza. xaw ma ne dégg nga loolu sax. non damay damay damay. dama rek. damay taxale rek. mais sànq gis naa nga gëtan sa ma glace la xaw ma. dama ko yëngal des fois day yaram bi sedd quoi. ko ne le moral yar des fois yaram bi day sedd bu day tuuti. non yow laa wax yow le moral est bon. waaw ah, mais on est là bon on est on te bon affaire yi yàgg nañ ci nag. on dirait waaw mais c'est c'est tout à fait normal ah. adversaire li mu la wax si suba tey si journal record. waaw mais loolu baax na ah waxu mbër ndaw la rek. mbër bu da laa yërëm. ndaw moo war a menacer mbër bu mag. <laughs> da laa yërëm de. waaw noonu a de nee daal na fexe rek ba ba ba koy dóor ba bu benn ànd doom dugg ci biir géew non na fexe rek waaw loolu moom bëgguma ko nag. wax dëgg ah. yàlla ah loolu moom manque de sportivité la rek. bëggoo kenn aate. non du yoon waaw xam affaire yi danañ jege. Ah. te tam ñu nekk ci ah. non na CNG ga asalaamaaleykum lamba jee passé gars yi dañ daw dugg ci biir tas affaire yi non nañ bàyyi loolu ah. fair play nag ñoom buñ jekkoo kenn du atte waaw moo tax am naa sama copain foofu lay waxee mais naka waajtaay waaw on est là way ñu ngi ñu ngi waaw bu dañu bëri ay combat xam nga ay combat yoo xam ne bon c'est des jeunes ñun Fass de waaw yoo am enjeu te ñun moom Fass bu damay wax ne ñoo ëpp ay espoir ci làmb ji xam nga moo tax booy ça tombe a pic quoi booy am bokk même club boobu ba période ñu ay une semaine moo tax moo en groupe bi am na solo trop. travail en groupe bi ban avantage nga si gis ngeen boo booloo tey Girdewo di waajal dimanche prochain Lac Rose di waajal. waaw mais loolu moo loolu mooy avantage yu écrit parce que ñu ñëpp dañuy ñu ñëpp dañuy xam ne ku ci nekk am nga bés boo xam ne dangay ngay sa morom moom la sa morom moom la sa morom di la di la apporter day nekk gagnant gagnant xam tax amul combat da xaw a métti non dafa métti dafa métti te booy yi dañu am seen soxla bopp yoo xam ne duñ ko duñ il ñu koy dem di ko régler ji waaw bu ñu amul combat day métti moo tax nii nii daan alhamdulilah ko Gris 2 war a bëri ak mu daangu nag li may waxal rek du mbër bu extraordinaire waaye mbëru jom la mbëru jom la mbër bu naqaree bari la. waaw mais gis naa j'ai vu am gis naa ay combat am. guerrier la booy bu waaw waaw guerrier la mais loolu la làmb loolu la ñuy soxla ci mbër mbër il faut nga nekk guerrier xam nga buñ daan ak daanu moo fi am ah. <laughs> même booy daanu da gaa yi xam ni na gaa yi xam ni. parce que sa combat Eumeu Sène ba tey amateur yi mënuñ si doyal. waaw mooy waaw mooy li ma lay wax rek mbër moom mbër muy dem jógee këram dem làmba ja kenn gënu ko bëgg ndam mais yow na nga def loo xam ne boo yeewoo suba teel sa conscience tranquille permettre la nga sigg di xool nit ñi mbër dina am ndam sax billaay am kersa xool nit ñi parce que benn yàlla ko suturaal wala daa daw ba daan wala dafa wane ñàkk jom ba yàlla dimbali ko xam nga la mais mbër dina daanu ci làmb sigi xool ay xool ay nawlem xool ay ay mbokkam fier ci boppam parce que def na li mu war a def est-ce que loolu booy mbër buy dem ci làmb da nga ko war a na mbër dem négocier combat di daw di yëg ci saako gi waa ji di la dàq di ngay négocier ci ay ci ay avertissement ba yàlla jox la ndam nga ndam boobu nga war ko savourer loolu loolu du loolu loolu du du du jikko day làmb jom da ci am te booy bëreet te loo jom si biir rek mooy en toute sincérité nekkatoo ko. combat bi waaw ña c'est des jeunes yoo xam ne ku ci nekk xam nga xam nga làmb ji fan la la yóbbu dafay normal ku ci nekk xam nga enjeu wu combat bi te booy bi euh, Gris 2 euh, malchance bi ci mu am mooy day day toog lu yàgg du bëre. xam nga te bëri ñoom seen génération dañuy moytonte trop di eh, ku nekk di moytu sa morom te ñun te ñun suñu génération ñun dañu man ñun avant ñuy avant ñuy yegg suñu mag yi dañoo daanante suñu morom ba jeex tàkk. man avant may dem ñu may jox chance ay bombardier ay Lac de Guiers dama daan sama morom ba am ñëpp ñu fi ñu fi daal ñu fi gën a garaaw dama leen daan ñu soogoo ñu yëg ci kaw mais léegi booy génération bi dañuy moytonte di wiir yi waaw ah, bëgg a mais dafa am boo xamante aussi si a wax aussi muy votre frère Lac de Guiers 2 tey vraiment nekk ci ay trop trop tey en tant que président des lutteurs ñaanal yàlla ah, foofu fa la mu nekk du place ndog ndog la te ñu ngi koy ñaanal yàlla di ci def ay pexe xam ñun nag suñu ay mbir mënuñu ko di ko def di ko wax ci kaw dañ ci war a def ñu koy def te bañ ko daree def ak léegi yàgg na waaw Sénégal nag dafa am ñoo xam ne balaa ñoo wax ci problème mooy caméra yi taxaw man nag yàlla dogal na du ma fonctionner noonu mbir mi bi ma ciy taxaw kenn taxaw kenn yëgul taxaw ci ay taxaw ay mbokk Lac de Guiers ak ñi ko jege xam nañ man ban xam nañ man ban taxawaay laa ci am te bi mu ciy taxaw boobu mbir mi coow li sa bareegul. waaw incha allah yàlla na yàlla def jàmm.